na ma ko wax nee naa ko sawaay sequma ak yow ay wax tooñu ma la yaa ngi dégg bul dugg samay 18 ok nekkal ci li nga nekk dangay ngay xeex injustice da ngay ki jur loolu juru nga may contact yow kay defal directement ay ay ay ay ma ay député ah ay sénégalais yeeg ay injustice da xaw ma kalifu ma leen seetaan moo ma jekk-jekk bi man du ma seetaan kenn loolu li na xaar pour envoyer maa ngi toog ba tey loolu di xaar non kooku du ma ko saaga de kooku dama wax ak moom waxu nit parce que taaliba Cheikh la di taaliba Serigne Babacar si mu vocal ma ma tontu ko wax ak moom waxu nit ne ko sa man mosuma publier photo nit yaa ngi dégg li ngeen xamul ci kaay yi mooy yéen boo leen yoree seen video surtout daa seen bopp bu vidéo bi daw Adamo lu mu ci man Adamo dafa weex donc parce que moom la nit ñi di seetaan yéen seen vidéo ñëpp a yor ndayam di ku fi def vidéo ko Adama publié wul di Adama day toog wax information dalay woo toog wax Adama publié wul de yéenay publié yéen a war a xoolante seen biir ah kaa am na allo ndee jot nga ci lii yow sa xaaral ma envoyé ko duudu la duudu la allo Khadija yow li ma envoyé yëggu ko xaaral ma parce que Moussa Pape Birame wuy yaay dëkk baa toj yaay. yëgga ji lii wax waxanaa lii góor jotu ko alo ngóor yow yëgga sa xarit bi lu mu def yow noo xaaral ma jox ko Mariam Mariam jàllar ca Daawuda yéen yéenay def loolu pas man pas man man lu def yéen ñëpp yor ngeen vidéo yi di man maa weex dunq parce que man maay toog ci live bi di wax mais du ma teg vidéo baay man fii laa màggee man kenn mënu maa jaay affaire tubaab waa ji li ma ko wax dégg na ko de dama koo wax waxu nit te balaa laaj bee jeex dinaa ko woo appel ma ne ko envoyé ma sa adresse laa ko wax yónnee ma sa identifié ak sa numéro téléphone am man li may def lay gars yi dañ may déranger ah sama numéro musuma koo joxe parce que bu may def live nangam nangam xaw ma nu mu tudd man seetaanu ko moom dama dégg rek mu naan ay victime ak moo ma bind ay victime ak ay nangam sa man man man man man waay sa may leen ma jàmm baay gars yi may leen aadama jàmm baay kii ni ko yàlla def may leen ko loolu doomu séeréer laa jaaxaan faxe de jaaxaan faxe damay mer de damay génne sama jikko séeréer yi xanaa yéen ay dëmm ngeen léegi Adamo rek fi nekk club house Adamo youtube Adamo sa waay bu yàlla defee ma nangu seen bës amul problème mën naa posaat may leen de mais damaa xam ne bu ma posé sénégalais yi du leen seetaan du tax ngeen doxle yen man may wax seen arrangement la ndax ku ci dem vidéo balaa guddi nga egg vingt ans wala trente neuf mille site bi ci publier nit ñi xool ko ku def vidéo ci cas bi am am ay vi loolu sama barke la barke Adamo la tey jii su ma posoon un mois télé yi danaan teg YouTube bi danaan teg Instagram bi danaan teg TikTok bi danaan teg mais gars yi du leen neex Sénégalais yi bëgguñu loolu ñoom danoo bëgg Adamo muy motiver ñoom bëgguñu maa gis sax may toog billaahi Sénégalais yi bëgguñu loolu day bëgg Adamo muy motiver wu ñoom mën lan soxla mën la ni wër Sénégalais yi mën la ni wër mën lan bëgg loolu yàllaa ko def ñu ngi ci 6800 te duggaguma ci kaa waxaguma kaa de man rek maay wax ñoo ngi ci six mille huit cent man rek maay wax man kese kaa bi ñëwagul de man ba tey man maay wax nii ma man rek maay wax sa nit ki lu ko yàlla defal nangul leen ko ko nangul leen ko li ko yàlla defal yéenay baasante seen i vidéo seen biir yéenay weerante seen biir roqaye jox awa awa jox ñaaña ñaaña jox sooda sooda jox biraan biraan jox faatu faatu jox ma yéenay paasante seeni vidéo di wax Adama dafa weex donc parce que man maay lijjanti information yi maay indi gars yi ci vidéo yi mais pas Adama lu tax ngeen yëpp Adama man man xawma lu tax ngeen yëpp ma Adama du sutaal ku may sutaal man lu ma def lan laa def lan est-ce que wér ngeen yéen est-ce que di ngeen kan laa ma sa wane vidéo bi responsable tamit c'est honte ok gars léegi dama leen di wax tuuti ci cas bi ba tey waxaguma damaa teg photo rek man gars yi du ma seen morom lii lii lan ma iñaane lii moo tax ku ne di génne di wax naan aadamo aadamo ku ne di wax di ah te li ñuy wax aadamo daf may arrangé parce que man ñoom mënuñu maa daaneel ku ne jëm na pour daaneel man dootul mënu leen ko li may liggéey dama ko mën li may def dama ko mën dama bari talent gis ma ma toog nii rek talent kese laa ak bu ma feccee nga ne aadama mii du nit ma jàng nga ne du nit ma kaa nga du nit ma wax dëgg nga ne du nit ma def vidéo wax ci nit nga ne kii du nit talent laa bëri may leen ma jàmm doomu jàmmoor laa defuma dara jotewu ma kenn dara waa jooju noonu nag li ma ko wax après naa ko woo téléphone naa ko woo téléphone ci live bi wax ko ko muy dégg yaa ngi dégg léegi nag gars damaa bëri yërmande trop damaa nekk nit ku baax xale bi tey ba ma jotee vidéo dama ko woo téléphone ma woo ko mu expliqué ma ne ma carrément lesbienne la yaa ngi dégg bañoon na sax ma expliqué mais moom dafa juum yëfu xale moo ko dal ay mbokkam ñoo ma woowee fu ne ci àdduna bi ay mbokkam billaahi ñëpp a ngi jooy ñëpp am na lu leen metti moo tax bëgguma sax eggale live bi dafa am audio yaayam ak benn audio am boo xam ne bu ma ko dégloo sama yaram day daw damaa bëri yërmande 18 ans la am soor la dëkk yaa ngi dégg dinaa ko woon nag mu expliqué mais buggumaa teg daraam photo bii sax damay ñëw dindi ko dafa juum benn waay la xamanteel Facebook gaañ bi góor la mu waxtaan ak moom yaa ngi dégg léegi ci la ko waaj ñu échangé numéro moom tamit jigéen la ko tegoon comme que moom jigéen da ko neex jigéen la ko tegoon léegi ñu waxtaan ñu échangé léegi mu waaj laaj ko ay photo mu yónneeku ko waaj laaj ko ay foto moom tamit mu yónnee ko ay photo sexe waa ji jël ay photo jigéen comme nga jël sama rakk rek bu jigéen boo xam ne nii ñoo nuroo su lépp nga jël ko yónnee ko photo yëppay nuroo moom mu dem moo yaakaar ne jigéen la mu yónnee ko ay awraam yónnee lépp léegi mu woo ko appel vidéo waa ji di góor jël bi dem bloqué waa ji waa ji mer ne daf may envoyé vidéo yi ma contact gel bi ne ko duma la dugal ay mbokkam ñu may woowee fu ne mais gel bi situation moo doy waar situation moo doy waar barke Serigne Babacar dama koo yërëm ba tax live bi sax bëgguma mu kii billaay dama ko man mii dama koo yërëm fu ne la ma nit woowe ci àdduna bi fu ne ma ay mbokkam woowe Espagne France itali waaye fu nekk ci àdduna bi Sénégal fu nekk ay mbokkam fu nekk ci àdduna bi bindaaxi léegi dinañ ko woo ñu déglu conversation balaa boobu damay am ay vocal yu ma leen wan du ma teg daraam nag photo bi damay ñëw dindi ko nii dama leen di wan rek euh, asalaamaaleykum Adamo Adamo maalam ñaan ci jëmmi sëñ Babacar Si bi nga gëm yow si jëmmi sëñ Babacar si bi nga gëm benn muy ñaar si jëmmi sëñ Babacar si bi nga gëm Adamo bàyyil mu bàyyil mu set man. allo salaamaaleykum grand man na encore grand dimbale ma rekk live bi waxuma du am waaye dimbale ma rek nga suturaal ma kii man du ami sax ami sax du sama préoccupation bu bu bu kii mais sama waajur sama yaay ak sama papa bu ñu yëgee lii. lii góoma mu xaj ci sama yaay góoma mu ci sama yaay moom rek ma jaaxal fu ma ne nii dama lay ñaan rek li lay war a suuli suñu famille bi ñëpp jaaxle fu mu ne nii sama papa ak sama yaay yëgaguñu lii bu ñu yëgee lii tey mara leneen la ñuy waxaat tey leneen lañuy waxaat famille bi ñëpp ñëpp ñëpp a jaaxle man xaw ma naka laa def man pour ma am sa numéro j'ai tellement souffert. mais man lay ñaan rek maa lay ñaan dimbale ñu rek la ñaan ngir yàlla. bon gis comme la ko waxee dépassé si gi ak avant koor allah gis nañu yaa ngi sensibiliser yaa ngi yee askanu sénégalais yaa ngi yee jeunesse bi macha allah. allo salaamaaleykum. yoo xamante si nii mënuma leen koo tegal parce que ojo yi daw yaram la léegi nag xam nga nan lay def dañuy dugal gel bi moom mu expliqué quoi léegi après mu mën a sedd. billaay parce que dama koo yërëm barki sëriñ Babacar si am na audio boo xamante si nii bu ma leen ko tegaloon yéen ñëpp day seen rangooñ yi day tuuru barki alxuraani karim billaahi am na audio boo xam ne bu leen ko tegaloon yéen ñii ñëpp dana leen jooyloo barki Serigne Babacar si man xam naa li ma leen di wax maa yore kaay yi maa ko téye billaahi wóor na yàlla léegi dañuy dindi photo xale bi dañ koy dindi photom photom la di dindi léegi après ñu daal di woo gel bi ba xam allo Ami. Ami live bi commencé na da ngay daal dindi sa kaski yi. live bi commencé na dindil sa kaski yi. ok yaa ngi si jàmm. waa esa bi Ami 8000 personnes ñoo lay seetaan 8000 léegi tegal leen affaire yi nu mu demee. ami waaw ñu ngi lay dégg tegalal sénégalais yi nu mu demee affaire bi. alo ami dama ne tegalal sénégalais yi waxal da ngay dindi sa casque yi nga wax parce que ay nit ñoo lay seetaan man du dugal sa dara. dama waaw. ci la yëndee du yi. waaw. foo contrôle ni kon di utiliser. waaw. foo contrôle ni kon di utiliser parce que bu man kese la ko def na ko sama copine aussi sama copine man la. ok yow daal jigéen nga ko jox jigéen nga ko tegoon moo tax nga yónnee sa moo tax nga yónnee ko vidéo yi. tant que yaa ngi naan lesbienne laa lesbienne laa bañ wax gudd moo tax ma naan la waaw. waa léegi nan nan laa ko mën a jàppe non non non defal ndànk moom Facebook ngeen xamante yéen ñaar ngeen essencé yaa ngi dégg nga teg ko jigéen yéen ñaar ngeen doxaanate ci Facebook bi yaa ngi dégg ba ngeen doxaanatee ngeen dem euh, euh, WhatsApp nga laaj ko ay photo awra mu yónnee la yëfu jàmmoor yow nga yónnee ko sa bos ba nga xamee ne góor la nga boleke ko léegi loolu lan la ko nit ñi mën a jàppe te laaj naa la nga ne ma lesbienne nga lan moo la ci dugal nga ne la école yaa ngi dégg nga toog ak sa benn xarit man dinaa la suturaal mais dama bëgg dëgg amul problème nattu yàlla ku ne lay dal yaa ngi dégg amul problème dinaa la suturaal du ma dugal dara yaa ngi dégg xam nga li ma la mais xam nga lii xam nga xam nga xaaral ma walla discussion bi laa lay tegal fu mu commencé may ma. Euh, daa coupé dinaa ko woowaat dama leen damay wan gars yi rek discussion bi fu mu commencé euh, gars yi xaaral tuuti ma wan leen. gars yi may leen ma tuuti ma wan leen discussion bi fu mu commencé ma bàyyi loolu mu sedd waa baax noonu dama leen di wan rek dama bëgg dama bëgg rek mu leer amul problème man mën naa bàyyi mu sedde mën naa bañ a war a dara comme que sutura ngeen ko jàppe amul problème naa ko woowaat dama bëggoon lu leer rek mais bu fekkee bu fekkee dangeen koo jàppee neen amu problème mën naa bàyyi mu sedd garaawul saa bu leen ma woo ami soxla ami maa ngi lay woo rek mi ngi sonné jël jëlal maa ngi lay woo rek mi ngi sonné quoi jël gars yi kii situation bi dafa doy waar quoi barki Serigne Babacar Si billaahi may ma rek maam gars yi lu ma leen wan tuuti moom jaruma koy jëlaat sax jarumay teg photom quoi jarum bu bëggee mën naa bañ a duggaat ndax man li ma maire bi wax rek li ma maire bi wax rek naa ko suturaal waaw ok ami jëla sa appel bi amuñu temps moom tamit nag neexut a faral de maa ngi woo rek muy dof dof loo ami maa lay woo sànq ba tey yow tamit neexoo faral de jëla sa appel bi ah jëla sa damay damay dem quoi aw ma temps gars yi dañoo xamul sama baax loolu lañ xamul dan maa jàppee ko bon mais bonuma billaahi su ma bonoon kii barki yàlla kii kii billaahi dama da sama yaram sax dafa daw ba ma meer bi woowee barki Serigne Babacar si duma ko bon bàyyi mais yéenay koy defante seen biir du ngeen di def fee jàll ci mareem mareem jox mais Adamo dafa weex dunq bàyyi lu nu wax ñu ne Adamo man maay def live yi parce que man maa yore information yi man damay woote lijjanti kaa bi nu mu demee looluy sama liggéey ma andi la fii mais man vidéo yi booy yi mën nañ koo yore bu yàgg mais Sénégal yi lijjantiwul lool Sénégal yi bu vidéo taxawee danoo war a xam lu tax vidéo bi taxaw nan la demee ak daka la loolu laa leen di expliquer di leen ko leeralal mais yéen yéenay partagé wu seen biir yéenay partagé wu. man sama yónne wu ci man dugaluma kenn damay ñëw rek bu woola waxtaan ak yow comprendre ngeen waaw noonu la demee ne ku ne def li nga xam man du ma nit ku bon bàyyi barki yala bu ma doon ko bon fii léegi fii wàcc billaahi bonuma kii yaayam woona ma yaayam di wax bi audio bu daw yaram barki Serigne Babacar Si léegi garaawul léegi xoolal gars yi du teg photo yi du ma teg vidéo yi nan jéem a lire discussion yi tuuti après tegal leen audio moom tegal leen benn ojo après ñu tàggatoo parce que bëgguma mu yàgg parce que ñu bëri woonan ma di ma ñaan yaa ngi dégg du ma teg vidéo yi mais dama leen di wan discussion bi quoi parce que damaa bëgg lu ma ñëw wax leen rek mu doon dëgg am confirmation parce que man tamit du ma fen suñu waxante li ñu waxante nga ne da nga ñëw leeral loolu mënoo koo leeral man mën naa koo leeral garaawul bul dugg naa bañ a teg sa vidéo mais ma leeral sénégal ay ne man li may wax am na fu ma ko teg te du ma fen yaa ngi dégg pour loolu kese la mais pas que ñàkk sutura wala am nga sutura parce que bu nu amoon sutura duñ defante loolu moom moo ma nettali carrément ci gémmiñu boppam daan ne ma xale bu góor bi yaa ngi dégg profilu jigéen la def tuddee ko mari man ma yaakaar ne jigéen la may waxtaan ak moom mu yónnee ma ay vidéo ma yónnee ko samay vidéo ba ma demee ba xam ne moom du góor dama ko daal di bloqué yaa ngi dégg ma ne ko jigéen moo la neex loolu dinañ ci ñëw mais dama leen tegal en attendant discussion yi yaa ngi dégg ngeen xool ko yaa ngi dégg noonu la ñuy def waaw ñu bañ a dugal dara waaw noonu la ñuy def léegi xool leen discussion yi gars yi damay gars yi euh, damay euh, damay damay désactiver commentaire yi damay désactiver commentaire yi après ñu dugg ci kii moom dafa tatoué pooj bi ami gis nga ko pooj bi da koo tatoué aax bi yi la ci def moom mooy Aminata mooy turam lii leen bu baax dama leen di wan rek discussion laa leen di wan ko wane discussion yi laa gën a soxla tu m'as fait des vidéos bébé moi j'ai fait une vidéo message yaa ngi noonu liiral leen ko seen bopp xoolal ama ah, ñëw defe naa gis ngeen discussion yi mu ngi nii moom ak gel bee doon Facebook mi ngi nii lii ay discussion la ak kooku gis nga non am na bu des de am na bu naan ko ma m'avais trahir gars yi xaaral ma dindi leen commentaire yi après ñëw ci boobu noo dama leen di man da juste pour ngeen comprendre am na bu des am na fi mu naan ko nekko ko danga maa yooyu xaaral gis ngeen discussion yaa ngi noonu moom ak waa ji gis nga fii fi mu naan ko tu m'avais encore trahi xool leen tu m'avais encore trahi gis nga ko nii la deme léegi lii la doon wax ak waa ji léegi après man ma woo ko ma woo ko appel léegi nan déglu appel bi man moom duma teg ay vidéo mais dama leen di leeral la comme que moom duggul doon lesbienne nga rek mu yem entre man ak yow kenn bañ koo xam parce que man jàpp naa la ba pare waaw léegi wax wax ma rek ñu waxtaan kenn bañ a xam dara boo ñëwee ci live bi leeral après nga génn dem. léegi danoo ah, da ah, léegi ah, waaw léegi danoo waaw léegi danoo bëggoon a xam loolu nan la la nan la la dikkalee quoi maanaam situation bi nan la la dikkalee nan nga nekkee lesbienne ak nan la la affaire yi dikkalee noonu nga leeral ma ci tuuti. yow loolu musu la dal. loolu musu dal wala danga daan am da danga daan ay gel yi ñoo la daan doxaan ngay génn ak ay gel wala affaire yooyu noonu ñaata gel nga mës a am. ah ok moom moom mais. fu ngeen daan gisante. parce que dañ daan waxtaan par waxtu kon yow mosoo am gel boo xamante ni dangay ngay gisanteeg moom. waa léegi lan moo la xiir ci loolu maanaam góor ñi dañ laa mënut a satisfaire maanaam góor kii la daal. léegi lan moo tax jigéen nga bàyyi nga bàyyi koy dem ci data pour mu simple. danga may wax quoi boo ci dundee lu ci critique nga naan ma dama ciy dund lu critique wala boog nii la demee il faut nga expliquer ma damay wa damay comprendre rek. parce que man dama may gis fii xale may gis fii daal des wala ngeen kii. waaw wala yooyu quoi yow da ngay expliquer rek nga ne man de nii la ma dikkalee nii la demee. waaw wala sa benn xarit bu jigéen yéen ñaar da ngeen a masa foo ngeen tëddante xam nga ngeen laalante wala affaire yooyu noonu expliquer ma rek. waa dama ne nan la la dikkalee nan loolu laay laajte nii. Facebook laa commencé ñu def loolu. Facebook nga ko commencé. waaw. mais ndax da nga da nga amoon maanaam jigéen yoo xamante ni da nga daan seq ak ñoom ay yenn bagages comme sexe wala affaire yooyu noonu ba tax nga habité wu ci loolu lan moo tax nga habité wu ci maanaam maanaam pourquoi nga ne góor neexuma nga dem fee. waa koy mais explication yi lan soxla quoi parce que waaw kay parce que yow li ngay expliqué leerul. waaw kay waaw mënut a nekk waaw loolu laa la wax. donc donc koy donc koy dund après mooy loolu comme ni ma la wax. waaw mu ngi toog entre amis di kii di ci kaaf affaire yooyu noonu. waaw loolu la demee expliquer. ah, ah dama am benn xel bu ñu naan kay laa. waaw. Facebook la nekk. fan la nekk. Facebook la ñu daje. kay laa waaw ok waaw. ñu daje Facebook ñu commencé waxtaan. waaw. ñu waxtaan noonu waxtaan ñu dem ba ñu tafewu daal. ñu commencé génn. fan ngeen tase. Facebook. ok mais da ngeen a gisante après wala. non appel vidéo la ñuy def. maanaam yéen appel vidéo ngeen di def nii rek ku ne wane baalaam sa bopp wala affaire yooyu après mu jeex. lu ngeen def appel vidéo kay di nga baaraam sa bopp yow ak moom xanaa du sa du sa copain wala. waaw mais baaraamanteeg yooyu bul ne ma doo ko def di ngeen ko def kay comme ça du vidéo yi rek wala du dëgg. waaw ah, ok léegi li ma bëggoon a xam mooy ndax nga mas a toog ak jigéen toog ba mu yàgg nii di ko raay wala ngeen di raayante ñaar. ah. loolu fan la woon. fan la na waa loolu. mu ngi côté école. waaw loolu la loolu la waaw mais moom da dul jaar dama bëgg muy expliqué di jaar ci dëgg bi ndax ñun duñ ko dugal man du ma dugal vidéo am ay vidéo am du ma ko dugal ci àdduna bi mais mais dafa war di wax lu leer comprendre nga anam loolooy wax ji. ok waaw seen côté école la woon léegi léegi nu ngeen def nu ngeen def ba xamante ci école bi ngeen xamante. waaw. léegi après ba ngeen xamante ci école bi. waaw. te am na yenn moment yi nga xam ne maa moom kese ñoo hmm. di flirté. Ah, foofu la la affaire bi dikkale foofu la la mais mosoo génn góor yow jigéen da nga mos a génnal. damay génn góor. ah ñaar yëpp nga ñaari côté yëpp la. Hmm. da ngay dem ak jigéen di dem ak góor. mais kan moo la gën a neex waaye jigéen. ah. jigéen moo la gënal daal jigéen moo la gënal. Ah. nee na jigéen a ko gënal. ok mais léegi yéen bu ngeen yéen yéen comme tey jii yéen lesbiennes yi bu ngeen daan def sexe yéen ñaar bu ngeen di defee sexe. jërëmu audio di yegg. comme nii nii ñu koy defee ci film yi wala. la demee daal nii. léegi nag waa ji noonu la ko naxee moom it xaw ma nan la xamee ne kii lesbienne la ba mu bind ko après mu envoyé ko vidéo yooyu waaw nii la cas bi demee mais nan suturaalante rek àdduna amul solo yaa ngi dégg jëru teg vidéo xam nga jëru wax bi di bëri mais dama bëgg ñu xam ne man Adamo ah awma intention pour yàq dara lu ngeen di def ci bon rek yéen a ko bëgg defal seen bopp man li ma mën mooy ñëw indi information yi wax leen na mu demee indi gel bi mu expliqué bu mënta expliqué mu expliqué ma ma expliqué la ko yaa ngi dégg teg affaire yi nu mu demee bugguma sax di teg ay vidéo ay live yaa ngi dégg bëgguma di teg ay video bëgguma di teg dara ci nit ki waaw dama bëgg di leeral rek gars yi di ci bàyyi xel du comprendre waaw loolu laa bëgg ko mais jëluma ci intention pour yàq nit wala def lii wala def laa comprendre waaw pour muy rafet rek waaw parce que fii ku fi yàq yow yaa yàq sa bopp waaw yéenay def seen vidéo di yàq seen bopp pas man waaw léegi nag xaaral ma ko ma woo léegi xaaral moom lu ma ku ma woo gars yi dafa am ku ma léegi baa ma woo ko damaa jaawal numéro yi de Mamour maa ngi jéggal damaa jaawale numéro yi allo. nu mu demee maa ngi ziar. jàmbaar dooli ziar. maa ngi dem jàmm ba. sant sunu borom alhamdulilahi rabil alamin. lépp nice. waaye sant bu wér wér. ok Sénégal yi de ñu ngi lay déglu maa leen woo maa leen ko léegi ne leen. Mm-hmm. da def benn publication ci YouTube bi. waaw euh, léegi ma def la haut-parleur wala euh, ma bàyyi ba ma développé ba yaa ngi seetaan sama YouTube bi seetaanal tuuti ba ma développé après moom la amul problème. no non non non non yi ñoom ñoom ñoo lay déglu nii maa ngi ci live moo tax ma woo la. Ah, ah, yaa ngi yaa ngi yaa ngi sa live yow sa sa Instagram. maa ngi sama Instagram waaw. ah ok léegi man maa ngi nii di live sama chaîne YouTube Kali Info amul problème léegi bàyyi ma terminer sama live vite fait bu la neexee après nga sànni ma sa lien Instagram sama WhatsApp man am naa sama Instagram ma dugg foofu loolu laa doon débuté ñun ay sénégalais nu

vidéo boo xam ne da nga ko def pour sénégalais yi nga ne da ngay xeex injustice nga ne victime yi danoo war a def plainte pour ñu yónnee la ko. waaw. waxtaan nan loolu laa wax naa expliqué naa loolu. waaw léegi bàyyil ma pare sama après incha allahu rabbi nga yónnee ma sa lien Instagram. non moment bi ngay paree moment bi ngay paree xam naa du ma du ma du ma fekk quoi parce que demee. dans vingt minutes léegi yow léegi yow bu la neexee nga arrêté cinq cent grammes yi nga jox sa sa public ne leen dans vingt minutes. mais gars yi dina war a gars yi dina war nga eh, ma nga lan laa lay man maa ngi en direct sama chaîne YouTube bàyyil may gali sama li may def. man boo ma invité sa live amul benn problème mën naa ñëw waxtaan ak sa public comme ni ñu waxtaanee léegi si. non li ñu waxtaan li ñu waaw li nga def li nga def moo tax ma invité rek pour expliquer la waxtaan ak yow am lu ma la wax. du ma la manqué respect du ma la saaga comme ni mu ko defee rek taalibe Cheikh nga comprendre nga. munoo ma saaga parce que waxtaan la du dëgg. waaw loolu laa la wax moo waaw moo tax ma ne la waaw moo tax ma ne la waaw. ku ma soon waxtaan ak yow domaine yu mel nii sax saaga nday nga ko doon waaw loolu dëgg la. xëy na loolu nice moo nar am moo tax mu demee parce que waxtaan nañu échangé nañ te plus de vingt audio. waaw ba ñuy mujjee sax foog naa dañu ma ni la nekkal si jaamu ñu ñaanalante du ah, naa xeex ndaw nga ndaw laa. Hmm. loolu laa doon taxaw it pour ko Sénégalais yi. waaw léegi Sénégalais yi laa bëgg nga expliquer leen ko fii ñu dégg ko. instant yi sept mille ba ah, so seen so seen nga bëgg ma dugg loolu du problème frère déggoo li ma. waaw léegi yónnee ma sa lien Instagram man dinaa terminer sama live. dans dix minutes vingt minutes la waxoon léegi dinaa fa terminer sama xarit YouTube yi ñu ngi fii y' a cent quatorze personnes léegi laa commencé. cent quatorze waaw fii maa ngi ci mille ñu ngi may xaar nii. mille personnes. waaw mais dégg nga li ma la wax public bi maam du benn xam nga Instagram booy am onze ans yi douze ans yi sax waaw dëgg la booy jël seen parti du yónnee booy yeewuli. waaw YouTube ak Facebook ay qualité ñoo ay nit yoo a ne c'est des responsables. ok léegi léegi sa waay. bàyyi ma eggali sama YouTube bi rek après on s'accapte yónnee ma sa lien Instagram. man après bu ma paree léegi dinaa leen pare naa yow nekkal di wax ak sa public bi comme li nga leen di tàmb di def ngeen di kaf ngeen di fecc wala yooyu quoi nekk leen si yooyu ñun ñu wax pour le askan wi di waxtaan ci yow. Eh, eh, eh, waaw laa la léegi léegi man nee naa la man nee naa dama bëgg nga commencé di yee askan bi parce que askan wi ñoom soxla loolu. parce que yow yàlla dafa. waaw mais non da nga def da xam nga fan nga mooy maanaam vidéo bi nga publier nga ne gars yi sénégalais yi nangam loolu laa la bëgg a la bëgg a teg ci live bi am lu ma la expliquer. bu dee da nga gis ne erreur la benn lu ma attends bu ñu waxee ndànk rek du ma la yuuxu de. ba nga ne de non dafa ndànk ba nga ne maa taalibe Cheikh nga taalibe Serigne Babacar nga booba laa wàccee sama kàddu waxtaan ak yow. non déggoo de. waaw man depuis au début depuis au début ba mu ne njëkkee bi Sénégal yow peut-être gëmoon ne naa la jox sama numéro France ma ne sama numéro France laay laay bee. ma ko joxoon nit bu ma si woowee rek laay bi day dakk. Ah. nga ne ma kon yow ragal nga ma ne la ragal pour nga ne ma joxeel si laa la ko bindal. waaw numéro bi maa moom mais dama la dama la soxla dama la dama la maa dama bëgg nga ñëw ci live bi. comme ni nga waxee ci vidéo yi xam nga expliqué waaw. Maam Sall la. dëgg la jeune nga man la yàlla dogal na man seetlu naa ay nit nee nañ ma ñu ne Adamo dafa réew mais man yow wanoo ma réewande parce que ba ñu waxee ci WhatsApp dépassé woo ma dépassé wu ma la saaga woo ma saaga wu ma la. te yaakaar naa ne tey nii comme ni nga ko waxee léegi léegi nga ne damaa def vidéo xëy na beneen nit bu defoon ni vidéo bi loo njëkkoon def rek mooy taal sa kii ana kooku wax ma ni ma lii dee ma de mais defoo ko ci man. waaw parce que da nga ma bind ruus naa échange yow WhatsApp ba pare ñëw fii di ne neneen loolu du ma ko def waaw. oui ma xam nga ni ñuy def. Ah. Euh, euh, temps bi mu ngi dem bàyyil ma respecté sama public. Mm. muy nit yi xam ne dañu bàyyi seen lépp ñëw abonné sama chaîne YouTube ma jox leen cër waxtaan ak ñoom lu ma ko bëgg waxtaan ak ñoom. Mm. yooyu bu dee da nga ma bëgg dalal sa biir Instagram. waaw non dama la bëgg a indi am lu ma la xamal nag yu bëri yoo xam ne xamoo ko daal. léegi dans dix minutes dans dix minutes neel sa élément yi nekkal di teg foofu ay waal yi en attendant dans dix minutes man tàggu gars yi fii sama euh, YouTube ma ne leen maa ngi Instagram euh, boy bi Adamo xaw ma lan xam naa ni tey moom xaritu Kaliphone yëpp dinañ ñëw foofu seetaan lan la Kaliphone ak Adamo nar a wax tu vois amul problème on est tous de Sénégalais ba ma ubbee sama live léegi léegi loolu laa débuté ma ne ñu nekkuñu fii pour ne dañuy toroxal suñu moromu Sénégalais nekkuñu fii pour ne dañu bëgg jàpp benn Adamo foog naa ñi seetaan YouTube bi loolu laa parce que ñun bu doon suñu sago Adamo bu nekkee si njuumte ñu waxtaan ak moom ba njuumte bu mu nekk en tant que jeune ak jeune duñ ko nag ñu wax ak moom en tant que nit ak nit yàlla mun na ko génne si lu mu nekk ay nit ke la nit ku dul juum amul foofu laa doon débuté rek nga woote. parce que ba ma débuté dama ne alhamdulilah déggoo naa booy bi Adamo mais si respect la ñu wax commencé si nga woote public bi ñu may seetaan yaakaar naa ne bu dee tàng gënuma la tàng bu dee tàng it gënoo maa tàng ñun ñëpp ay ndaw la ñu am ku ne am na xalaat. tey nee naa la yàlla moo def ndox bu sedd am yàlla moo nar a def jàmm am parce que yaakaar naa ni réewande bi nga réew réew boobu moo nekk ci man mënoon naa la defaral vidéo YouTube ma bind la WhatsApp nga saaga ma ne ma lu tax nga defaral ma vidéo dal sama kaw man it ma taal sama Facebook ma la ma leen ma saaga mais yàlla dogal na ni ba léegi saaga am du dëgg ñu ngi wax si jàmm pour sunu Sénégal baax ba ñu déggantee lu ñu waxtaane mooy Adamo Sénégal ñu bëri ñu ngi sonn ñu ngi dem di si dee si hôpitaux yi comme yàlla dogal na ni influenceur nga bu doon sama sago nga concentré wu Sénégal yaakaar naa wax nañu loolu sax ba ma ne la Macky Sall ba nga reetaan ne ma Macky Sall kay lu ko ay def baax na xam nga ñu kaf man si loolu laa lay woote bu ma duggee sa kii si loolu la ñuy ñëw man pour ne dañuy def pétition pour sonal sunu benn mbokku sénégalais ñu koy néewal doole ñun duñu ko nangu Tunkara ngi nii barki démb ba ko Macky Sall bëggee andi Sénégal Sénégal yi dañoo dee ne duñ si ànd honnête Adamo bu ñu demee ba ne dañ koy xeex man jeune laa ñaanu ma yàlla loolu nga immigré si ma ne damay xeex sama morom immigré mais dafa am tamit foo xam ne bu ñu fa daf ñuy gis gën a loo gis fa laa doon waxee mais amul problème euh, neel sa maa ngi ñëw léegi ma eggale nuyu sama gars yi wax ak ñoom di nga tax ma dagg sama live dans dix minutes. waaw fii laa la bëgg a waxtaan ak yow nag moo tax ma lay bàyyi sax di la déglu sax ba tey ngay say cas dañoo soxla nga dëgg ak nit mu lay xool nga koy xool ngeen jàkkaarloo. waaw Khalifa Sall maa bëgg nga ñëw maa bëgg nga ñëw parce que li tax en général sax en général ñiy def vidéo yi nii du ma wax ak ñoom maanaam du ma ci wax ak kenn awma lu may wax ak ñoom wala lu seq ak ñoom mais yàlla def na bind nga ma am naa sa numéro am na lu nu waxtaan jox nga may vocal ma jox la vocal am nga loo wax sax xaw na maa reetaan loo comprendre moo tax ma bëgg nga ñëw fii maam lu ma la expliqué loo xamul waaw bi soxlawu ma ñëw sa plateau. waaw mais ni ma la defee nii nga ne ma invité naa la sama plateau en tant que jeune en tant que sénégalais. Hmm. dama la koy nangul jour ma soxla la ma la Adamo soxla naa la sama plateau ñu wax si Sénégal ñun dañuy invité si plateau sénégalais yi télé yi plateforme partout dañu invité Kaliphone yow laa bëgg invité émission sangam ñu ne leen ok ñun ñangi sax bu ñu invité dañuy dem wax laak suñu frère sénégalais te lu ñuy waxtaane waxuñu si affaire paak waxuñu si affaire trop lu ñuy waxtaan c'est pour suñu Sénégal lu ñuy def ba mu émerger Adamo yaa ngi bitim réew yaa ngi gis feebar faju yaa ngi gis dundu ajana ñun loolu lañ yéene sénégalais yi suñuy ndaw kon nañu concentré wu suñuy ndaw yi man am na ko ma woo léegi depuis xaw ma Angleterre ne man nañu wax d'abord suñu ndaw yi nañu arrêté li ñuy def exactement li ñuy def rafetul lu ñuy def kenn du ko kenn du ko cautionné kenn du ko cautionné mais problème bi mooy il faut tamit Adamo génn si gaam bee mu nekk mooy gaamu théâtre la fu mu nekk mooy non théâtre ma de théâtre man duma théâtre bàyyi man duma kam de dañu ñëw nañu ñëw Adamo taal Facebook am ne ministre sangam sunu nga sàcc. budul loolu non ku nekk ak sa domaine yow foofu laa lay waxee yow yooyu yow non ku nekk ak sa domaine ku nekk ak la ngay res non sa waay ñëwal waaye ñëwal après. Eh, eh, eh, non ñëwal rek yow ñëwal ba fii rek yow. 300 et quelques personnes ñu ngi si donc léegi dina wax gars yi maa ngi ñëw sa chaîne Instagram. maa ngi lay xaar maa ngi lay xaar. waaw léegi yónnee ma sa lien yónnee ma sa lien incha allah. loolu du benn bind salut. ma la yow yow demal sama sama Instagram di nga gis Kaliphone Sall. yow nga def foofu demande. non dama la koy yónnee parce que ma nekk ci ci live bi du ma mën a génn dem fenn. yow noo may def léegi parce que dama gis ay dix mille Adamo gars yi xam nga sénégalais yi fu mu ne nii ah, euh, mooy loolu dañoo am jot. ay dix mille Adamo ngay gis di di di mooy loolu xam nga tu vois <laughs> mooy loolu ah.

waa ji bàyyil moom ñëw moom ñëw ci live bi dugg waxtaan incha allahu rabbi ok gars tey kaa bi dama koo gàttal xam naa ne deret bu soof la tey deret bu soof la xam nga lan moo tax mu soof parce que kii famille dafa am famille dafa am famille kii bu ma ko du woon suturaal dinaa teg audio boo xam ne bu ma ko tegee adduna tukki barki Serigne Babacar Si audio boo xam ne bu ma ko tegee adduna tukki mais du ma ko teg billaahi du ma ko teg mais dama leen doon man rek di leen ci temps tey direct bi xam naa ne soof na man sax direct bi neexuma neexuma parce que ñi ma woo fu nu nekk ci àdduna bi ñii di jooy fii ñii di wax fii yaayam daa feebar maamam daa feebar no mais ku fi waxati ne aaduma dafa bon ma wax ak yow saa yi man dama baax dama baax mais sama xol dafa rafet mais gars yi ngir yàlla nag wala rasuuli waxoon naa ko duma ma ko waxati kaa bu fi jaaraat man boos day néegi nii du la baal kaa bu fi jaaraat dama ciy dem ba sës kaa bu fi amaat damay dem ba sës sonn naa ci baale bi dama am public dama am peuple bu may seetaan dan ma gëm bëgguma ñuy tàyyal bëgguma sama peuple di énervé deret bu soofee nii maa koy doog ko def mënuma cee sori parce que mbokk yi ñoo tax billaahi mbokk yi ñoo tax moo tax mënuma teg dara mënuma def dara deret bi tey dafa soof c'est honte live bu tey bi c'est honte dafa soof neexul live bi neexul te man mënoon naa neexal live bi mënoon naa neexal live bi ni ma koy defee ak yeneen jigéen yi tal ndayam wax dugal cinq minutes bu ma yeb bu ma fa eh mais defuma ko tey parce que dafa am audio yu ma dégg mu tuuse ma barki sëriñ baaba Sy billaahi xale bu jigéen bi dugg fii xale bu jigéen bi euh, yaayam nee na xaw ma yaayam xaw ma tàntaam nee na nee dundul nee na nee nee na barki alxuraan karim noonu li mu wax bu ma ko waxee rek sutura sutura bu sutura day jeex kon foofu sutura amatul maire bi lu mu wax su ma leen ko waxee rek a jeex kon li ma liggéey lépp zéro lay doon barki Serigne Babacar Sy non tey live bi neexul live bi neexul mais nan jéem a woo euh, kii nan jéem a woo Mercedes ba xam dinañu wan tuuti bagage non dama ko yërëm de barki Serigne Babacar dama ko yërëm billaahi dama ko yërëm billaahi dama ko yërëm non nettaliwul jaar jaar kaa bi nag kaa bu am doole la doon doon gis nga kaa bu ma ci demoon ba sës fii day wàcc. dé déglu li xaaral ma fay connexion bi yéen ñi naan ma ay aadama li ngay baale bari na yéen laay wax rek déglu leen bu baax ngir yàlla ak yonent bi déglu leen lii bu baax déglu leen yéen ñëpp déglu leen. déglu leen bu baax de yéen ñëpp déglu leen déglu leen. Euh, asalaamualeykum Adamo noo def waaw ñun ñu ngi lay woowee ba fii ci Dakar man buñ ne ami léegi en fait lañu la ñu jot nouvelle bi suñu sœur bi nekk Canada moo ñu jox nouvelle bi donc moom ami moo ko jox jox numéro bi waaye dama lay wax benn affaire Adamo euh, ñun du ami moo tax ñuy ñuy envoyé message yi ñu lay envoyé c'est pas pour ami xam nga tax Euh, léegi laa raccroché ak sama sœur bi nekk euh, Canada ñun ñoo yar ami ci Ziguinchor man am moo xam nga la laa bëgg nga def ko balaa dara di xew dimbali ma rek bu suba wala tey sax bu dee am nga élément wala gannaaw suba ku la neex nga jël ko ñu dem ba ca koñ ba ami libin ami ami moomu dëkk nga def enquête ci biir ci biir kër yi leen jege ak yi si bi pour nga xam famille bi ami yaro ñoom ñooy jax ba tey man maa la ñaan loolu parce que gis nga weer lépp loo gis ci wax rek dafa war a am firnde donc soo demee ba def enquête bi ba xam famille bi bi bi bi yar amee di nga xam ñooñu ñooy ñan parce que tamit nit du ñëw di la wax si moom lu baax il faut ñeneen ñi ñu wax si nit ki li mu xam et sama frère bi léegi dafa il a il a il une chose importante man maa ko ko rappelé sax Ami Libin dañ koo former wallahi wal azim sama bàjjen moo ubbi buntam dégg ay liir yu jooy mu dem ubbi bunt bi fekk liir bu tooy xepp si buntu këram mu jël liir bi sang ba di jooy di jooy woote fu ne sang ba set ne tuddee naa ko ami si laa teg ci santam ami moomu ba léegi xamul ni dañ koo yar ci biir kër parce que sama bàjjen da koo yar comme doom bu mu jox ami nag yàgg na def bêtise ndax ami da daan dem école di ñëw di indi si saakam yu kenn xamul dañ koo dóoru dóoru dóor ba sonn mais lii mën nañ ne bettuñu si moom parce que nee nañu man sama mag bi nekk Canada nga xam ni foofu la yoroo ci même kër ga ñoom ñoo wax ne ami da daan def ay bêtises te yàgg na def bêtises te ami mu ngi soog a am dix huit ans voilà. waaw ah, lii lu ngeen ci bëgg a teg ngeen ne Adama warut a baale ngeen ne man waruma am xol bayi kaa bi mu sedd jàll ci leneen lan ngeen bëgg a teg ci lii lan. lan wax leen léegi non wax leen ñi naan ma ay aadama du baale an ah, li ngay baale mu leen man neexuma mais nii la mën a demee sa waay lii awma lu ma ci teg nan waxante dëgg rek fii moom amul dara loo xamante si nii lumière bi wax dama ko ci teg dara dara lu ma ci teg lan dara lu ma ciy teg stttt sawaay tey sama yaram daw na sawaay mun musuma mel nii yi dama ko yërëm barki Sëriñ Babacar billaahi wallaahi wa taala moo tax lii lii moo tax yéen ñi naan duma baale non wër na yàlla kii moom sa waay laay dama ko yërëm xaaral moo waat ko ne ko lan mooy sa orange money